bokk na ci pas-pasu lislaam nga gëm ne lépp loo gis ak dogal la mooy yàlla xamoon na ko sàkkal ko waxtu woo xam ne bu ci àggee ci la koy def te it dara du rëcc kon tombe rek am wala rëcc am amut lépp lu am rek ab dogal la bu yàlla rëddoon ne dana am bu àggee ci waxtoom ak bërëbam ak dayoom amee noona yem ca képp du ëpp du yees yàlla mooy boroom coobare ji lu bëgg mu am mu daldi am lu mu naru du am nag du am mukk mukk lu mu nar mu am nag moom day gaaw lool li ñu wax naa day wax naa kun fa yakkoonu sax dañ ci misaal rek na muy gaawee ci saa yu ci jubloo nde baat boobu sax dafa am dëgg-dëgg amal ndax lu amut noo koy waxe amal dañu bëgg wax rek nu muy gaawee ci lu mu jublu rek coobare mu daal di am fas saasay saas yàlla xeeti bàkkaar yi da ko def ñaari xaaj am na bàkkaar yoo xam ne mën naa jékki-jékki jéggal ko jaam ba te sax tuubut ci coobaram rek la ko jéggale loolu nag mooy bépp bàkkaar boo xam ne agul ci bokkaale yàlla rek yàlla mën naa jékki-jékki jéggale ko bàkkaaru shirku nag boole yàlla ak dara loo xam ci rub yàlla nga moomale ko am mbindeefam nag mooy bàkkaar boo xam ne faaw koo ko tuub ko walbati ko wéetal ko delloo ko cëram bi bañ koo boole kenn mu dal ko ko jéggal waaye bokkut ak boobu rek moom mën naa jékki-jékki jéggal kooku te tuubu ko sax mukallaf mu ne nag war nay farlu ci di tuub ndax daanaka ku lu jàdd amut xanaa néew bari rek waaye koo xam ne mucc ci bàkkaar wa weesoo yonante yeeg wàllu yu mag yem ak li ëpp ci jaam yàlla yi daañu faral di jàdd def lu ñu wërta def mbaa ñu wax ko kon nag ab jaam fu mu toll daa war di tuub di dellu ci boroomam tuub dëgg-dëgg bu fekkee sa digganteeg sa boroom rek la ay sartam mooy nga rëccu la nga defoon tamit lu neexul yàlla rëccu ko rëccu gu toll ne bu amutoon tey jii moom du am te rëccu ko nga teg ko ci kaw kat ab jaam laa rek bu doon mooy saab sang waaye boo ko teg ci kaw rëccu naa li ma daan naan naan gu aay ndax yàqal na ma sama métier amatuma dara mbaa jële naa ci wér-gu yaram boobu rëccu sa bakkan rek tax nga rëccu ko da ngay rëccu kay la nga doon def te neexutoon yàlla te waroo ko woon a def na rëccu ba sës foofa te bañ a sës rek ci kaw ñàkk naa ci saab liggéey mbaa sama yaram wér ci mbaa lu ko ndóo gannaaw rëccu gi nga doggu ci saasa saasa ci lu yàgg-yàgg doo ko defati te bu fekkee yaa nga ci woon nga bàyyi ko fa saasay saasa ba noppi dogu ci mu lu yàgg-yàgg duma ko defati mukk mukk mukk lu tee nag bu la sa bakkanu seytaane ma ne ba nga dellu defaat si ko it mu tax nga naagu da nga rëccuwaat tuubaat rek dellu ci yàlla ndax yàlla mën na laa baaxe nga dem ba bàyyi lépp lu aay sax ci lu baax bu fekkee nag dafa am àq ju doxoon sa digganteeg sa moroom doomi aadama nag moom war ngaa taxaw temm ci seet noo lu jëntee àq jooju bu dee alal nga delloo ko ko bu fi nekkut nga jox ko ña ko war a doon bu fekkee nekku fi ñu ko war a doon nekkuñu fi nga saraxel ko ko bu fekkee da ngaa yàqoonub deram nag moom bu fi nekkee rek nga dem jégalu ko waaye bu fi nekkul nag moom da ngay rëcc rek tooñ nga ko tooñoon yàq ab deram te di ko sàkku njëgal di sàkku njëgal sa bopp bu fekkee nag yàlla baaxe na la fayal la àq joojee njëkk ngay taseeg moom ci àllaaxira baax na bu la yàlla baaxewul fayal la ko nag bu ngeen tasee ca bis penc rek nga fay ko ak jooju mën naa am sax li nga daan bari la jégalu ak di ko sàkku njëgal tuyaaba ja bare bari ba mën a fay loola ba des soo dee moytu bakkaar yu mag yi yàlla di la jégal yu ndaw yi doonte sax tuuboo ko na ci alquran in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudxilkum madxalan karima bu ngeen dee moytu bakkaar yi nga xam ne ñoo mag a mag ma di leen jéggal yu ndaw yi donte sax tuubu leen ko ku gëm yàlla moom bu jàddee tooñ boppam def lu yàlla bëggut dogu nañ ci ne bu tuubee tuub gu sell yàlla jéggal ko bu sàgganee ci tuub nag ba faatuwaale bakkaar yu mag yooyu nag dañ koy bàyyi yàlla rek ci coobareem bu soobee yàlla ñàkk gaa tuub du tee mu jéggal ko bu ko soobee itam mu fayantoo ci moom mën noo dogu ne ku jàdd yoon rek faw yàlla mbugal la déedéet ku jàdd yoon bu ko tuubee daal yàlla jégal ko ko bu fekkee tuubu ko nag ba faatuwaale bàkkaar boobee li ñu waxoon léegi ñu bàyyi ko coobee yàlla bu ko soobee jégal ko du ko topp dara bu ko soobee it topp ko ko mbugal ko xalaat daa bare woon lool ci borom xam-xam yi ba am ñu wax ne ku xas def bàkkaar rek soppi nga ab yéefar te sawar ngay sax di wéy mu ne nag suñu pas-pas mu waa ahlu sunna dañuy jàpp ne bàkkaar moom bàkkaar rek la taxuta weddi yàlla taxuta dem sawara ku def bàkkaar daal jàdd na yoon rek na tuub bu ko tuubul nag niñ ko waxee woon yàlla mën na koo jéggal mën na koo bañ a jéggal bu ko dugalee sawara ci ñàkk ko jéggal nag dañ ko fóor rek lu tolloog la mu tooñoon bu loola jeexee ñu génne ko ahlu sunna daal ñoom bu ñu wax ne bàkkaar benn tuuti wu ci yëpp rëy te xos ku xos def bàkkaar soppi ku nga ak yéefar mbaa ñu naa loolu day tax mu dem sawara dëkk ci loolu ahlu sunna moom jëpp ñu loolu koo xam ne dafa topp pas-pas boo xam ne biddaa la dëppawut ak sunna te loolu kuréel yu bari la daa am ñuy tuddee seen bopp al qadariya ak ñuy tuddee al murjia ak al mu'tazila ñuy kuréel yu bare bari dañuy jàpp ne ñooñu seen pas-pas sellut kàccoor lañu waaye nag du tax ñu wax ne ay yéefar lañu fusaaq lañu ay kàccoor waaye loolu ñu ay yéefar seen pas-pas moo sellul rek yàlla daa wax ci alxuraan ba tàyyi ne jaam ñi dana leen dekkal taxawal leen ci benn béréb seet seeni jëf kenn ku ne mu fayanteeg yow ci kaw sa pas-pas ak sa jëf ku wedd loolu moom dañuy jàpp ne ca dëgg-dëgg ab yëfar la ndax kon fekk na lu sax a sax ci alxuraan ak sunna mu di ko weddi ku weddi nag li ñu wax ne ñooy taxe bu ëllëgee daañu gis yàlla seen boroom ni ñu gisee weer wi bu nekkee ci asamaan ci jamono yi muy leer nañu naññ ku weddi loolu moom dañuy jàpp ne faasiq la ndax weddi na lu sax sax ci addis waaye du tax na ñu jàppee ko ab yéefar ka ñu jàpp yéefar daal mooy ku bëgg a weddi taxawal gi ngi taxawal jaam ñi bu ëllëgee ci bis penc ci kanam seen boroom mu xisaab leen loolu moom dafa sax te fés ci alxuraan ak addis ba ku ko weddi ñu jàpp ne ab yéefara la ku wax ne yàlla daal leen lu ne xam na ko ci boo ko boolee muy takku say waaye nag benn benn yi moom bu xewee rek la ko door a xam xam nga dañuy jàpp ne yàlla moom li am ba noppi ak li tollu ci am ak li amagut lépp la xam dara umb ko ci kuy wax ne nag yàlla xam na mbooloo yi ci boo leen boolee waaye nag xamul benn benn yi benn benn yi faaw day xew rek mu door koo xam waaw loolu ak kéefar la ngay jàpp ne yàlla leen lu ne xam na ko te xamee ko na mu doone boole ja boo boole lépp xam na ko boo ko teqalee ay benn benn xam na ko te leen lu ne nam doon la ko xamee ku jàpp ne yàlla day jëmm ju ne léegi ju mel ne jëmm yi rek di ñum sàkk ne sax bu jàppee ne yàlla jëmm la ju ne léegi waaye wuute naag mboolem jëmm yum sàkk ko dañuy jàpp ne moom faasiq la waaye nag bu jàppee ne yàlla jëmm la ju ne léegi te it jëmmam jooju am na jum nuru ci lim sàkk su boobaa lañ koy jàppee yéefar moom li wax naa aw jasama ay i'taqada anna allaha taala jismun kal ajsaam wa amma in yactaqada annahu taxala jismun muxaalifun li saairil ajsaam fa saxihu annahu faasiqun faqat jàpp ne yàlla jëmm la junne léegi ba nag boole jàpp nag ne juróowut ak jëmm ci des loolu moo tane ndax dañ jàpp ne kooku borom pas-pas boobu faasiq la waaye nag jàpp ne yàlla jëmm la junne léegi te it ni jëmm yi rek yi nga xamoon la mel am na ca wum muru waaw loolu moo gën a rëy moom lañ jàppe ak kéefar doomi aadama boo xam ne kenn du fa tëb song ko rey ko dañuy jàpp ne rek ab appam moo agsi yàlla jaarale ko faatoom ca kookee rek waaye kenn mënta rey nit te ab appam agsi wut waaw jàppal ne bu app bi agsee moom yàlla mooy xam fa muy jaarale ab jaamam ba jële ko fi mën na koo jaarale ci kaw nag moroomam jaamam dal ci kawam rey ko li mu ci mën doon daal nga gëm ne moom daa fekk boobu app ba agsi rek waaye ku ab app agsi wut kenn mënu koo rey doomi aadama ak yu bare bari dañuy boole yaar jëm ak ruu yaram bi nag mooy li nga xam ne mooy jeex moo bàyyi koon ci suuf delluwaat di suuf waaye ruu gi moom amul fu mu yem kon daanaka doomi aadama yes naa wax ne rek boo seetee wàllu ruu gi moom du jeex mukk ndax bu faatoo it ruu gi rek mooy tàqaliko yaram wi ruu ga nag di am xéewal mbaa muy am mbugal te neen lu yàgg-yàgg kat bu dee xéewaloo bu dee mbugal faaw rek mu di ko wër fa mu nekk ca bàmmeel ba mooy ca fa mu nekk ca ba mu faatoo doonte demoon na ba sooy dutee rek bu dee xeetu xéewaloo bu dee xeetu mbugal la dana am lu koy jàppaleeg jëmm ja nga xam ne ca la nekkoon moom ruu gi waaye ruu gi moom amul fu mu yem daa am ñu wax ne nit ki ci boppam mooy jëf jëfi boppam ndax bu fekkoon du woon moo koy jëf kon yàlla du jëf jëfam ba noppi di ko ca mettital kon kenn ku ne say jëfi bopp yaa ko jëf rek waaye yàlla doonu ci dara am ñu wax ne it déedéet yàlla moo forcé jaam bi muy jëf te sañu koo bañ ahlu sunna dañuy jàpp ne nit bu demee bay kàllaf ànd ak xelam ànd ak sagoom te kenn forcé wu ko day mel ne boo ko dee xool ci ni muy soppaxandikoo mën naa jàpp mën naa bàyyi mën naa def mën naa bañ a def mel ne kon manis na ko askane jëf ji ci kaw loolu rek ndax yàllaa ko sàkk wan ko ne ko lii mooy jëriñ lii mooy lor jox ko xel mu koy teqaleel njëriñ ak lor mel ne mën naa jëm ci lee mën naa jëm ci lee loolu moo tax ñu koy askane jëf ji jëme ci moom rek da ci dëgg-dëgg moom yàlla moo jëf lépp lépp wallahu xalaxakum wa ma taamaloon de sax ku dof moom lu muy jëf kenn du ko ca jàppe dara gis nga gone itam lu muy jëf kenn du ko ca jàppe dara waaye mu kàllaf mi nga xam ne moom jëmm la moom te dofut nelawut kenn forcé wu ko mu ànd ak sagoom day mel ni daal la muy soppandiku day mel ni am na ca ak jublu def ak bàyyi bañ a def loolu tax na ñu koy askane jëf ji bu dee jëf ju baax ñu ko cay fay tuyaaba di jëfi safaan ba ñu ko cay teg mbugal
mu mel ne pas-pasu ahlu sunna moom mooy rek yàlla dafa sàkk aw yiw sàkk aw ay daal di xamal jaam bi nag ne ko lii moo di aw yiw lii moo di aw ay mel na rek bu fekkoon leen lu ci nekk am na bunt ak ceeb bi wan ko ne ko lii mooy bunt bi yiw ceeb jaa ngi nii moo koy ubbi lii mooy buntu ay ceeb yaa ngi nii moo koy ubbi mel na nag ndegam mukallaf mi ànd na ak xelam ak sagoom am na ak mën a tànn ci waax wuti buntu bi yiw su dëmbalee nag buntu ba yàlla ci boppam mooy ubbi buntu ba ba la cay juddoo ci aw yiw juddoo ca bu dëgmalee it buntub ay ba dëgmal ga jengam jeng jëm ca loola ci moom la ak fàggooma ak sabab wam la waaye nag yàlla moom ubbi ga bunt ba ak la ciy juddoo yàllaa koy def nga xam ne yàlla mooy sottal waaye nag jaam bi mooy dëgmal la mu dëgmal yàlla nag mooy sottal moo tax ñu wax ne jaam bi bu yéenee lu baax te dogu ca waaxu jëm ca doonte lu baax loolee mu yéene woon te dogu ca sotti wuti te ñu bindal ko tuyaaba ja waaye nag jaam bi ndega muy ànd ak sagoom di mu kàllaf kenn forcé wu ko du waaxoo dogu ci def aw ay donte loolu sottiwut te ñu bindal ko bakkaar ba mel ne bu defoon ay pexeem ci day rey diw ci kaw tooñ rek dogu ca ba def pexeem man ni ki néeg ba mu defee ne ca la nit ka nekk mu taal ca bomb ndax bëgg koo rey far kooku nekku ca yoon ba far déewut te tey ñu bindal ko bakkaaru ku rey nit loolu alquran moo ko wax wala taxsibanna alladina qutiloo fi sabilillahi amwaatan bal axyaawun inda rabbihim yurzaqun ku joxe bakkanam ci yëkkati baatul islam ba yàlla moom ca bakkanam kooku mu ngay dund fa boroomam yàlla di ko wërsëgal muy lekk ca meññeti àjjana di naan ca dexi àjjana ya nga xam ne faatu na sax waaye mu ngay dund ca bar sax dund ga nga xam ne yàllaa ko ko jagleel ndax la mu joxe bakkanam ci yëkkati baatul islaam
mu ne nag jaam bu ne jëf ya muy jëf te mel ni am na ci coobare ñu ngi koy bind bu ëllëgee ñu fay ko ko bu dee aw yiw ñu fay ko yiw bu dee safaan ba noonu waaye nag bul defee ne buñ ko bindutoon yàlla da koy fàtte mbaa da ko dul xam lépp la yàlla xam du ca fàtte dara waaye nag buñ nee jaam bi kat am na ñaari malaaka yoo xam ñu ngi ànd yow looy def ñu ngi koy bind xëy na muy fàttaliku loola di góorgóorlu loola jàjj ko ba moytoo jàdd ndigal rek moo tax waaye yàlla moom ñaari malaaka nekk fa di bind jëfi ab jaamam ak ñu ñàkk faa nekk ñooyemoo rek waaye jaam bi ci bopp lañ bëgg a dimbali rek bu ko see xam ne am na ñaari malaaka yu ànd ak moom kee di bind ay jëfi yiwam kee di bind ay jëfi safaanam loolu tax koo góorgóorlu ba di góorgóorlu ci lu baax day moytu safaan ba ci pas-pasu ahlu sunna nag ñoom dañuy jàpp ne lépp lu nit jëriñoo mbaa leneen jëriñoo ko ci yàlla sàkk te ñuy lekk ka naan ka jëriñu lépp lu jëmm jëriñoo rek wërsëg la wu ko yàlla wërsëgale bu fekkoon doon wërsëgam du ci jot ba di ko mën a jëfandikoo doonte sax yëfi jàmbur la yoo xam ne léwu ko waaye moom xas na ko jëfandikoo rek dañu jàpp ne wërsëgam la bu doontoon wërsëgam du ci jot ba di ko jëfandikoo ki gëm yàlla te am pas-pas nag mooy war a seet balaa jëriñoo dara seet ba xam lu lew la wala lu lewut la am na nag ñuy wax ne jaam bi la mu moom rek mooy wërsëgam lu mu moomul du wërsëgam donte da ko jariñoo it du wërsëgam lu mu moom rek wërsëgam la bu fekkee jëfandikoo ko daa nekkul muuram rek ñoom dañuy xaajale muuram nekk ca ak muuram ñàkk caa nekk dañuy jàpp ne ñoom lu mu xës moom rek wërsëgam la donte muur loowu ko it ni ki ñu sàcc ko ci moom mbaa ñu nangoo ko ci moom ci doole it teewut loola wërsëg la wu ko yàlla sàkkal waaye pas-pasu ñu nekk ci sunu daal mooy jàpp ne jëmm ji ameru tey jariñu lépp lu mu jariñoo rek daa fekkan muy wërsëgam moo xam nag da di lu lew ca moom baa mu doonoon luñ araamal ca moom baa mu doonoon lu ñu siboon mu jëfandikoo ko waaye bu ko xësee jëfandikoo rek moom wërsëg la wu ko yàlla wërsëgalee